inoga ina yon ba irip jaga oe na mama ndeysaan mi ngi noonu mbokki internet yi sixième combat ci biir géew bi dox ci diggante say jàmbaar ak internet internet moo féetee ndeyjoor say jàmbaar moo féetee càmmoñ ñaari xale yaa ngi noonu waaye nee naa caat sekk ma nga yëngal fële ñaari mbëri di yëngal fii ci biir géew waaye see jàmbaar mi ngi ne moo féetee càmmañ internet moo féetee càmmañ ñaari xale yaa ngi noonu ci biir géew bi internet dagg na bi taxaw eh, ñaari xale yaa ngi noonu laamu ji laamu ji doon neex la ñaari xale yi. waaw Thiat nga yëngal fële. maa ngi waaj dem tëj a dem yëngal. waaye Habib ndeysaan Habib daa ngi wax ak ñoom bëre leen. les internet. internet. defet la internet ki daan sàng moo daan léegi. moo daan mooy Armé Dieye. mooy Armé Dieye. Armé Dieye nga daanoon. bi ci biir géew bi. maanaam ay internet di wax ak internet. mi ngi noonu ndeysaan. tey jàmbaar internet Habib Sif la na génnoon seen ñaari mbër yaa ngi noonu di lewtoo Sey Jambar internet ñu ngi noonu Sey Jambar tànk ndeyjoor jël internet tànk ndeyjoor daw nañ jàppante na roofante ñoom ñaar attention attention la la mën attention songaloon na ko caxabal na ko jeexagul la ilaha illallah xale yi ñaari xale yi ay ndaanaan lañu

say jàmbaar internet ñu ngi noonu ñoom ñaar. moom Maya tey moo ko indi. moom Tëngéej la jugee. moom doomu Tëngéej la. say jàmbaar. waaye fii sa ci Modou tamit. waaw moom say jàmbaar. doom la ci Modou Lo. jàmbaar see la ko waaw. attention ñoom ñaar. say jàmbaar. ndeysaan waaw gars yi ko mu bëre de. dafa bokk ci làmb. ne ko promoteur seeti bàyyi ko xel. mooy yoon Modou Baye Fall Fallou Ndiaye seeti Mamaya dóor na ko tànk ca xabal. eh jàll na ko war na ko. jàll na ko war na ko am na. Sey Jàmbaar dookoorul nañ nañ xool. nañ xool nañ xool waat dañuy bëre waat waat waaw waaw. arbitre bi nee na ñu bëriwaat mi ngi noonu internet dafa teel daw da ngeen xaar déglu arbitre moom d'accordul internet d'accordul internet la du bëriwaat internet dama nga bëriwaat dama nga bëriwaat internet dama nga bëre waat lamb la voilà bu mu àtte boppam sinon rek jël na avertissement ndeysaan lambam day yàqu bu amul sens attention daw na waaw ñoo la ñuy yàqamti waaw ñoom loolu seen problème nag arbitre yi dañuy ñëw ñooy mujjee Thiès ñooy mujjee ñoo ba pare bëgg ñooy yàq combat yi ñooy yàq combat yi lu ci bëri ñoo koy yàq waaw moo tax mais internet na bëre wax say jàmbaar ndeysaan daa sa bi mu teggoon ci bopp bi mi ngi koy sonné waaw mi ngi ci bët yi ci bakkan bi la nekk ndeysaan ci lamb internet Sey Jambaar ñu ngi doon ndeysaan ba léegi ñu ci bërëb bi rofon dañ sànq ñoom ñaar daanoo ci suuf waaye armi ngeen trois appui la ndeysaan gis ngeen ko ñoom ñaar lu mu bëgg da ngaa bëgg a génne waat wala wax leen Cheikh mu embauché ma commentaire leen da ngay ko. ne leen ko mu si bët bi mu ngi koy séenee. tey da ngay star di ñëw ndax loolu bët bi da kaa séenee. moo tax mën a tekk benn place. moo tax a tekk dèjà jàpp rek di déglu. li mu bëggoon la bëgg a defaat. waaw li mu la bëgg a defaat. dina xool ba xam dina sotti du sotti. waaw waaw mbiitaan nañ c'est mbiitaan bëri nañ cinq mbiitaan. baa ngi noonu di waaj a waat dox si diggante internet ak Sey Jambar Sey Jambar moom ngeen jàkkaar lool internet moo leen wan ginnaaw di fàttali sàng bëre nañ ba ànd rëpp si suuf internet daw ne moo daan waaye arbitre bi ne ko trois appuis la daanoo waa leen internet dox na dox si kawam attention a ah, a ah, a ah, a arbitre bi nee na attention lu xew lu xew ba internet na ko jàpp <laughs> nañ déglu arbitre lu xew nañ déglu arbitre lu xew waaw nee na daan na ko nee na Sey Diamba daan na internet se Diamba daan na internet eh laamu ji jaxasoo na laamu ji jaxasoo na tey waaye ñaari mbër yaa ngi noonu ci biir géew ndeysaan di waxtaan internet a ngi noonu koso ngi noonu di ko yóbbu d'accord ñu xam naa ndeysaan ñu ñaar ñu ngi doon ànd ndeysaan di waxtaan diggante internet ak say jàmbaar eh, lu ñu waxande noonu kosu bi d'accord ñu ngi noonu ndeysaan di wax eh, lamb jaa noonu